barki yonentu yàlla Muhammad ñi ñu ngi caaxaanee lu garaaw lan la man ci baax loolu wóorul nan nga dugal ma parte yow fan nga nekkoon ba heure bi non dama am nelaw nelaw match bi de 1-1 la moom géejuwaay moo njëkk a dugal na dugal waaw géejuwaay mu mënuñ maa ci gérer lu tax dama dugg dugal ban poste ngay football ban poste ngay football Alboury ban poste ngay football man yàlla dafa def man dama polyvalent waaw man boo ma tegee ci ailier terrain bi damay fubal. ailier ailier terrain bi damay fubal. dëgg la boo ma tegee ci ci touche bi damay fubal. boo ma tegee ci ci défense bi damay fubal. boo ma joxee penalty bi damay fubal. léegi dama polyvalent macha allah léegi terrain ñaata joueur mooy mooy fubal ci terrain. équipe ah gars da ngay dugal rek da ngay du xiyaasu rek. da ngay dugal rek ba ba gars yi doy rek. doy ñaata ñëpp dugg rek fubal. ñaata. ah est-ce que du ay ay ay vingt et un vingt et un. moom la ñuy dugal. mais xoolal terrain bi fii fii ñoom yëpp na vingt et un. match bi amul règlement fu waay jeexul rek dugal. remplaçant yi ñaata lay doon. wala remplaçant ay ñaata ay ñaata équipe. normal équipe équipe normale. histoire football laa ba football di baax. waaw ba football di baax. ci biir terrain dina am vingt et un. waaw am bu dee douze. ñu teg ko foofu ak coach bi ak yi may ndox. gars yi may ndox football laa lay wax. yooyu yëpp ci la bokk. football mais initiative noo ko gisee en tant que. waaw mais dafa naaj ba ma dugg see gis waa géej waay waa parcelle yi xam nga. xaaral bi arrêté guñu bàyyi li ngay def arrêté. ayca demal Alboury daal mooy Alboury. noonu laa la demee ñëw nañu bañ sa commentaire loolu jënd ba terrain may ko ma may tuuti ma ma ma reporté ma ak sama ñoo koy seetaan may leen ko may leen ko barki sëñ Ba ma damay football ban poste ngay football man man maa ngi ci euh, mais yaa ngi woon ci initiative bi initiative bi noo ko gisee ah, comme ni ma la waxoon rek initiative initiative bi dafa nice. Hmm. ba ma dugg see ci stade bi gis waa Guédiawaye yi fii waa waa Parcelles fii ñu mel ne xam nga benn lañu. Hmm. ah ñun lool lañ ci bëgg quoi loolu lañ ci bëgg affaire bi dafa nice te wax dëgg yàlla lii sax bu saison tëjee dañoo war a boole xol yëpp waa Guédiawaye waa Pikine waa Thiaroye waa. parcelle ñëpp nekkaat benn xam nga ñu xam ne làmb fo la bu mhm. jeexee jeex na mhm. ñu ñooy may taxaar tey jii ku fi am bànneex wala naxar mhm. ngay gis mbaru géejawaay dañuy def seen déplacement ñëw bopp parcelle oh ñëw toog géré waa géejawaay tamit ñu noonu la demee tamit bu ñu amee luñ mënti xew da ngay gis mbër yi ñëw ñu wàññi violence bi surtout supporters yi nañ xam ne ñun ñëpp benn lañ Alboury war naa am géejawaay supporters yu bari xam nga Alboury war naa mën a am Pikine supporters yu bari loolu yàlla moo koy def mais pas ñu nekk fi di xuloo di xeex amul chance ndax tension lu mu rëy rëy rëy rëy bu dimanche lundi ñëpp fàtte ko. dëgg la kon nañu bàyyi xel ci loolu. te xam ne lii amul solo quoi. Mm. li mooy àddina kaf fo ree bu bu bu ñuy nag wala bu ñuy bu ñuy bëree bu ci biir kii bi. Mm. nañ raayante mais bu ñu jeexee jeex na. Alboury dama am lu ma bett. salaamaaleykum wa rahmatulah dama am lu ma bett. man ni dama am lu ma lu la bett. mooy Alboury bi doon wax dof laa ko jàppoon mais discours bi nga tenir nii ku ko dégg xam ne Alboury yaram be dof mais xel mi doful rek. man sama dara doful xam ne naa ah, ndey dof ndey doful ndey dee dof rek man damay dof dof loo fi nekk rek. waaw mais gërëm dal ñu li gars yi bëgg la ñu bëgg xam nga dañuy doxal di waxtaan xam nga bu wax lu baax jotee lu sérieux dañ koy wax mais bu mbalak kaf fooree jotee dañuy kaf fooree. waaw an sa doom day Tapha Mbeur gisuma ko de. Tapha Mbeur ñoo waroon a ànd bu doom Ah. du yor lu baax mukk jabar ji fi mu ne nii jabar ji koy bëgg a rey <laughs>